نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي نيجي سانت سوني بروم bi nga xamee ni jaam bi dafa war bu nekkee ci tiis di ko sant bu nekkee ci bànneex di ko sant sunu boroom boobu nga xam ne moo ñu bind indi ñu ci kaw suuf ngiree nattuñu ci lim ñu may ñu dund ko ci ay at gannaaw ba danañu jël yóbbuñu daa di indi beneen jamono beneen dund dund googu moom mooy dundug laaxira dund googu sunu borom yàlla won ne bu ñëwee dana rëy lool dana màgg lool mu ne ay yéen nit ñi ragal leen seen boroom ngeen ragal bis boo xam ne su ñëwee doomu aadama yi daan tiit ba jigéen bu yoroon doomam di ko nàmpal dana ko sànni ba ko ëmboon sax dana wasin da ngay gis doomu aadama yépp nga jàpp ne dañoo mandi fekk sax mandi wuñu de waaye mbugalu yàlla ba mooy mbugal bu tar keroog la yàlla di soppi sunu suuf bi beneen suuf maase la ko dindi garab yaag montagne ya suuf talli ñareet laa tara fiha iwajan wala amta doo gis lu dul mu nekk lu talli doomu aadama yi di gisante yàlla dajale ñu ñu nekk la la ko soob ci ay centaine de milliards wala ay mille milliards sunu borom yàlla nattuñu bokk na loo xam ne scientifique yi wax nañ ko mooy jant bi ñu tiim mi ngi nekk suñu digganteeg moom cent cinquante millions de kilomètres moo dox suñu diggante ak jant bi yonent bi alayhi salaam nee na yàlla dana ko wàccee ba mu nekk mille mille matul ñaari kilomètre loolee kon dana tax doomu aadama yi suñu boroom bu dul woon ak dundug àllaaxira daa wuuteeg dundug àdduna ñoom ñépp dañ doon def doom waaye àllaaxira kenn du fa dee looloo tax suñu boroom yàlla subhaanahu wa taala dana bàyyi nit ñi ci seen ñaq ba yonent bi alayhi salaam nee na ñaq doomu aadama yi dana dem dugg ci biir suuf ba def juróom-ñaar fukki mètre ci biir suuf gannaaw ba muy taa doomu aadama yi ku nekk na sa jëf toll woon noonu ngay mel ca tàngoor woowu ak ca ñaq woowu amma bu dee yéefar yi ñaq ba dana taa ba yegg si ci seeni tuñ ba yegg si ci seeni tuñ loolee mbokk nekk lu tiis doomu aadama bu nekk ci ñun wala xalaat waa man keroog lan mooy doon sama mbir mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na juróom-ñaari façon nit a ngi nii yowmal qiyaama tiis ya fay am ak ñaqare ya ak tàngoor waa xataay ba ñoom day yàlla dana sant malaaka yi ñu seppi leen ci biir mbooloo mi mu keral leen ci ker goo xam ne moo koy indi yowmal qiyaama di juróom-ñaari mbooloo yoo xam ne yal na yàlla boole ñu ci ñu bokk ca jukko yépp ngelaway bu dee mataloo ko it fexeel lum bon bon nga matal benn ca yooyee ba nga xamee ne moo ca jëkk sunu yonente alayhi salaam mu ne mooy njiit boo xam ne dafa maandu ka jëkk ci njiit ñooñu mooy ki jiite réew mi baba ka nga xamee ni nii moom mooy ko jiite kër ga sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yàlla day mi ngi leen di digal heure boo xamee ni nii da ngeen am kóolute ngeen joxe ko nañ leen ko wóoloo heure bi ngeen dee atte diggante nit ñi atte leen ci maandute yàlla lim leen sant lool dong mooy la baax te xam leen ni mi ngi dégg lépp lu ngeen di wax waaye mi ngi gis lépp lu ngeen di jëf abi hurayra daal di cay dolli ne ñi nga xam ne dañ doon maandu ci kaw suuf day yàlla da leen di may yowmal qiyaama benn tribune boo xam ne leer lay doon ñooñu mooy ñan yonent bi alayhi salatu wassalam daa di ne allazina yacdiluuna fi xukmihim wa ahlihim wa ma walu mooy ñi nga xam ne buñ daan atte maandu buñ nekkee seen biir njaboot maandu te soxna yaag ña njaboot a ñëpp mu ne ñooñu day noonu la leen di yàlla di gërëme keral leen ca arsh xaalis boobu muslim solo na ko loolu itamit mbokk lan la lay jàngal mooy suñu borom bu gërëmee noonu maandute ba ña ko melawoo mu leen di keral yowmal qiyaama moytul ma jeng sa kemtalal kattan bokk na la gën a màgg ci jeng sa borom yàlla bi nga war a jaamu wéetal ko loolee nga jeng ko jëmale ko ci keneen ba heure boo xamee ni nii yaa ngi dem bay waat ci yeneen tur ngay waate wudul turu yàlla ba fa kastalu woon bay daanu keneen ngay woo ko dul yàlla ngal la waayu mbokk xam leen loolu mooy jeng gi gën a màgg gu doomu aadama yi jeng ci kaw suuf gannaaw ba nag nga jeng na doon ci sa waa kër la wala ci mbooloo mu mën a doon xamal ne ñooñu suñu borom nee na sàggani wu ma seeni jëf maa ngi leen di xaare bis boo xam ne mboolem bët ya dana ca buqeeku ca du mën a tëje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul benn jaamu yàlla bu yàlla def kilifa ci dara mu war leen a jiite ba pare mu jeng seen diggante lu dul ne xetu àjjana du ko xeeñ loolu mbokk mooy jukko bu jëkk bi ca mooy nga jéem a bokk ci jaamu yàlla yu maandu yi amma ñaareelu jukko bi yonent bi alayhi salaam mu ne mooy ndaw loo xam ne dafa màgge jaamu yàlla ba magee jaamu yàlla loolee mbokk dañuy gis sunu borom taggoon nañu mel noonu ci téere bi yàlla bi te mooy jeunes ya nga xam ni seen waa dëkk ñi ngi doon jaamu lu dul yàlla ñu won leen gannaaw gàddaayi leen dem làqu ca montagne ba sunu borom yàlla neeloo wal leen fa ñetti téeméeri at tagg gam leen di tagg benn yóbbante la bu muy yóbbante ci mboolemu jeunesse ci ne ngallaawaay société bi ngeen nekk la fay xew ci shirk la fay xew ci biddaa la cay xew ci bànneex ngallaawaay bu mu leen yóbbaale doon leen ay jaami yàlla loolu moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala ndaw ñi nga xam ni seen jeunesse ak ni jeunesse neexe boo demee ca baal ba ñu ubbil la nga dem match ya ñu ubbil la nga dem ca rappeur yi ñu ubbil la loolu lépp nga bàyyi ko ci yàlla tax looloo tax sunu borom yàlla gërëm leen ci ëllëgi ki sibir mu leen di keral ca keram gu màgg googee nga xam ne moom lay indi ca sunu yeneen ci alayhi salaam it loolu la doon ñaax jeunes yi nee na profité leen ci juróom balaa juróom a ñëw bokk na lam ca jiital mooy jamono bi ngay nekk ndaw balaa la ak mag di dikke ak bari tey loo xam ne mag ñi ñi ngi mébétoon aka neexoon ma nekkoon ndaw ba mën a jàng aka neexoon ma nekkoon ndaw ba samay naafi la ma ci taxaw waaye fekk si trop tard loolu la tubaab yi di wax naan xaar si jeunesse savait si vieillesse pouvait ñu ne ay waay ndaw ñi bu ñu xamoon xéewal gi ñu am ba man koy exploité waaye cay mag ñi buñ dellu woon manaat gannaaw bi leen yàlla xamalee lan mooy valeur jeunesse ba ñàkk ko tey buñ dellu woon mënaat tey su ko defee feexi nga la waay yow jeune bi nga xam ne nii yaa may déglu te dañ koy wax mooy képp ku amagul quarante ans nga la waay góorgóorlul sa kemtalal kattan dummooyu lépp loo xamee ni nii dafa àndul ak la neex yàlla kon day ëllëg da nga nekk ci ñu yàlla di teral ca këram gu màgg ga ca yàlla naru laa teral ëllëg yowmal qiyaama lu dul def laa nar a teral ci àdduna avant alaxira loolu yow jeunesse nga yóbbaale ko muy sa jubluwaay bi gën a rëy ci kaw suuf amma ñetteelu waaj yonent bi alayhi salaam nee na mooy góor goo xam ne xolam dafa aju ca jàkka ya heure bu nekkee ca commerce ma ngay xool montram heure bu nekk ci tukki ma ngay xool montram fu mu mën a nekk mi ngi xalaat ndax noddu na ñoom nodduñu ay bépp julleem mi ngi góorgóorlu daal di koy ak ca jàkk yàlla ya loolee mbokk su dee góor ñaa dafa nekk farata ci ñoom ñu julli ji mbooloo waaye jigéen ña du farata ci ñoom waaye cey li muy ñàkk ñàkk nekk farata génn ga nga génn jëm sa kër jëm ci néegub yàlla ba sunu borom yàlla mu ne xam leen ñiy dundal néegu yàlla mooy ñi gëm yàlla gëm àllaaxira di taxawal julli di joxe azaka sunu borom mu ne ñii day mën nañu am ñu bokk ca ñu may jubal te xéewal gi gën a rëy doomu aadama di sàkku ci kaw suuf mooy mu bokk ci ñi yàlla jubal moo tax ñu koy ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar ihdina siratal mustaqim yàlla yal nag ñu teg yoonu jub woo yal na yàlla boolu ñu jubal ñu jële ci abi darda radiallahu anhu mu ne jàkka day mooy mooy dëkkuwaayu képp ko ragal yàlla te yàlla day gàddu na képp koo xam ne dafa def jàkka muy dëkkuwaayam ay mu fay dale na muy dale ci këram dana ko may yërmaande ci kaw suuf dana ko may xel mu dal ci àdduna te it yowmal qiyaama yàlla dana yombal na muy jéggee siraat daa di tabbi aljanna fekk fa ngërëmal yàlla yal na yàlla boole ñu ko defal amma mbokk la nga xamee ne mooy ñeenteel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy ñaar ñu bëggante woon te yàlla tax ba ñuy ànd yàlla moo sos ànd ba ba ñuy teqilikoo ñi ngi teqilikoo ci ku nekk yaa ngi bëgg sa morom te yàlla tax loolu it mbokk ku nekk ci ndu ko war a sakku bokk na ca la la jiitu muy wàllu sëy nga la waay ka ngay sëyal na yàlla tax nga sëy ak moom ka ngay may sa doom na yàlla tax nga may ko ko ka ngay takki na yàlla tax nga takk ko ila axiri waaye itamit xoolal ki nga xam ne nii sa dëkkandoo la sa collègue de service la gis nga ne kii kat moom yàlla doo nga ko ñor jàngal xuraan ak dem jàkk moo ko ñor nga la waay jegeel ku mel noonu xaritool ak ku mel noonu loolee ngeen ànd ci yàlla tax day tax yowmal qiyaama sunu borom yàlla keral leen ci keru arash mu safaanoo ak li xew ci doomu aadama yi tey bala ñoo am kontante ne sama xaritu procureur bi ministre tel sama xarit la DG tel sama xarit la ci loo xam ne mbokk même bu dee njëriñ dana ca am te njëriñ du jóge lu dul ci yàlla adduna rek la yem ngalawaay utal ñoo xam ne yàlla tax ngay ànd ak ñoom na doon loolu ay góor lañu wala ay jigéen na doon loolu ay mag lañu wala ay ndaw loolee nañ ci bàyyi xel bu baax yéen jeunesse yi nekk ci équipe de football yi nekk ci centre culturel yi ngan la way fexe leen bokk ci mbooloo yi nga xam ne dañuy dajaloo di woote ca la nga xamee ne nii moom mooy ah diine l'islam ca loolu mbokk day tax yàlla subhanahu wa taala def leen ay farandoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nii bégal nañu ci lii suñu mi ngi ciy dolli itamit di wax ne sunu borom day yowmal qiyaama dana am ay nit ñoo xam ni duñu ay yonent te it deewuñu sax ci yoonu yàlla waaye yonent yi buñ gisee pay yi leen yàlla paye ñoom dañ leen di ñee ci loolu shuhada wi ñen leen benn kaw kaw daal di ñëw sukk ci yonent bi na ko yu mu yàlla yónni leeralal ñu ñooñu ñooy ñan saxaaba yépp kontaan ci laaj bi yonent bi it kontaan ci laaj bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen ñoo de day nit lañu ñoo xam ne ñi ngi jóge ci giir yu safan yu yu teqali ko benn mbokk jokkalewu leen benn intérêt àdduna jokkalewu leen yàlla kese mooy la leen boole ci loolu lañ dundoon ba loolu la ñu deeyee yàlla dana leen tegal ay ay ay ay tribune yoo xam ne leer la def seen kanam ya leer def seen yére ay leer bu nit ñi tiit ñoom day duñu tiit ñooñu day ñooy ña nga xam ne malaaka yi ñoo leen di dalal naan leen bu leen tiit bu leen jàq lan moo leen ko may mooy àndoon rek fekk yàlla kese moo tax ñu ànd amma la nga xam ne mooy juróomeel bi yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam ne mooy benn waay boo xam ne soxna su rafet daa ñëw woo ko fu kenn nekkul soxna su bokk ci famille bu baax mu ne ko ah man day damaa ragal yàlla di benn position boo xam ne ñaar rek moo la ca mën a musal ndaw si taaru na kenn yëgu leen yow nga téye sa bopp day fekk ngëm yàlla mi ngi sa biir xol day fekk xel mu ñor mi ngi sa biir xol nga xam ne lii benn bànneexu bu gàtt la amma la cay topp mën na nekk mbugulu abada ci lii yàlla ak yonentam tëkkoo ñi nga xam ne dañuy njaaloo loolu di benn yóbbante boo xam ne rawatina suñu jeunesse bi néew na léegi xale yu góor yi di fekk yu jigéen ñi xale yu jigéen yi ñooy fekk ñu góor ñi waaye loolu nga la way bàyyi leen ci xel doonte nit mbokk suñu borom yàlla ku maandu la mooy laa chaque ne amul benn jigéen boo xam ne nii itamit am na góor gu ko woo ci njaaloo kii foo xam ne nii mënoon na ko def kenn du yëg mu daal di koy bàyyi ci yàlla tax lu dul yàlla jox ko la muy jox ko góor ki yonent bi alayhi salaam joxoon nañ ci benn misaal ay nit ñoo xam ne dañu demoon tëju ci benn montagne ba jàpp ne dee rek moo leen dese ndax benn roche moo leen fa bloqué ñu ne ku nekk na ñaan lam defoon te yàlla tax am kenn ci ñoom ne yàlla man de amoon naa benn doom bàjjem topp naa ko guddeeg bëccëg pour ànd ak moom ci njaaloo mu bañal ma waaye bis ba mu doonee ko sonn ñëw ci man di ma laaj ndimbal ma proposé ko ca la d'accord ba ma demee ba jekk ko mun a ma ragalal yàlla bul def lu yàlla araamal ma bàyyi ko ci yàlla tax loolee day yàlla bu dee yow rek yaa tax yàlla nag ñu génne yàlla génne leen jëf jooju mu defoon soxna su baax moo ko ci yóbbu loolu ku nekk ci ñun war a góorgóorlu bàyyi xel aaya boobu sunu borom di wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne ragal na day daje ak boroomam mu teree bakkanam bànneex yi àjjana mooy doon wàccuwaayam yal na yàlla boole ñu ci ñun ñëpp amma juróom-benneel bi mbokk julit mooy nga jël ab sarax daali koy sarxe ca yàlla tax sunu boroom gërëm na ñépp ñuy sarxe ca yàlla tax waaye mu nag tagg ca jagleel ca ngërëm ñoo xam ne ñoom day sarax yi ñuy joxe keneen ku dul ñoom du ko yëg seen jabar yëgul seen doom yëgul seen xarit yëgul ñoo kañ ko siqal rek ñoo ko yëg ndax xam nañ ne yàlla tax ñu koy def te yàlla moomu koy def moom moom xam na ko loolee ñu def doyloo ca yàlla moo tax yàlla di leen keral yowmal qiyaama am naa ko mujjoon ci juróom-ñaar yooyu mooy góor gi nga xam ne wala jigéen ji nga xam ne daa toog place bu kenn nekkul muy xalaat màggaayu yàlla di xalaat ngëneelu yàlla ci moom di xalaat bis bi muy dajeeg yàlla di xalaat ndax àjjanaay nar a nekk këram wala sawara mooy nar a nekk këram di xalaat moom naka lay mujje xalaat yooyu dem ba tax mu tuur ay rangoom yi sunu yenente alayhi salaatu wasalaam ne ku mel nii day dana bokk ci ñi malaaka yi sempi ca biir mbooloo ma keral leen ca kerut borom boobee ca loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam ne doon wax ci ne ñaari bët a ngi day sawara du leen laal mukk mooy benn bët bi nga xam ne daa tur rangooñ ca yàlla rek a tax mu tuur ko ak bët bi nga xam ne dafa nekk ca frontière di garde jullit ñi ba noon yi duñ dal seen kaw ñaari bët yi de duñu lal sawara loolu mbokk dañuy gis ne mooy la ñu yonent bi alayhi salatu wasalaam doon ñaaxe doonte ne it suñu borom noonu la ngàññee le contraire mooy ñi nga xam ne seen xol dafa wow seen xol du xalaat yàlla seen xol du yëngutu ci yàlla suñu borom mu ne ñooñu day alkaa nga ñeel na leen te loolu nag bokk na mbokk lu koy def mooy baril di xool lu xaraam baril di déglu lu xaraam baril di xalaat lu xaraam baril di nekk ak lu bon loolee day dem ba wowal sa xol ba dootul yëngootu ci yàlla sax su ko defee mbokk juróom-ñaar ñii day lañu sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax ci ne ngallawaay fexe leen bokk ci ñoom ndax képp ku ci bokk jafe-jafe yi am yowmal qiyaama ak lu mu tiis tiis yàlla subhanahu wa taala dana la ci musal keral la ca keram nga ba atta ay jaamam doog laa jël yóbbu la aljanna yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ca ñooñee gannaaw loolu mbokk julit amoon ngeen benn soxna bi ngeen doon àndal mooy sunu waajur wu jigéen bi ñu jur yàlla dogaloon na ba jàkk ji sosoo ba tey mi nga ànd ak yéen ci jumaa yi mi nga ànd ak yéen ci li fi am lépp ba mu demee ba mënatul a génn këram ci néew doole looloo ko teqaleeg jàkka ji yàlla dogale nag al altine bii la faatu mi ngi tuddoon soxna màggat sëy yal na yàlla jéggal ko ca yërëm ko yal na yàlla jéggal seeni waajur ca yërëm leen yal na yàlla jéggal ca yërëm bépp julit yal na yàlla rafetal suñu mucc yal na yàlla defal ñu ajjana muy suñu wàccuwaay yal nañu yàlla mugal musal ci mbugalum bàmmeel yal nañu boole ci ñami keral ca keram gu màgg ga muy indi yowmal qiyaama yal na jannatul firdawsi ala nekk suñu wàccuwaay mboolem fitna yi am ci réew yi julit ñi yal na yàlla fay ko yal na yàlla musal ñu ba baabu bañ a yegg si suñu réew yal na yàlla sàmmal ñu suñuy ndaw yal na yàlla sàmmal ñu suñuy mag yal na yàlla defal ñu la gën la muy defal ay jaamam ci àdduna defal ñu la gën la muy defal ay jaamam ci àllaaxira اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين